allez tàggat yaram dañuy njëkkee ak vingtième journée championnat. Euh, Ligue 1 euh, leader bi di Casa euh, qui a été battu par Saint-Louis par. Euh, la Linguère. oui par la Linguère 4 buts à 1 mi nga xamante ni ñii di waa Casa Sport ñi ngi ñoo jiitu championnat bi waaye ñi ngi des ci bopp classement bi ñoom ba tey ñoo jiitu waaye li ci gën a am solo Pape Cheikh mooy ñii di waa depuis ci phase de retour bi ñàkk ñu benn match. Mm. depuis ci phase de retour changé nañ fi entraîneur entraîneur bu bees bi mu ñëwee ba léegi mi ngi assuré ay victoire actuellement ñi ngi ci bopp classement bi taxaw am taxawaay bu am solo yeneen euh, résultat nii la demee ci vingtième journée bi su ne woor euh, NGB un but partout. Euh, derby Mourois bi nga xam ne amaloon nañ ko ci week-end bi Stade de Mbour Mbour Petite Côte zéro but Diambar 2 buts à 1 pour Diambar Ndiambour Jaraaf 3 buts à 1 pour Jaraaf AS Douane Guédiawaye 1 but à 0 pour Guédiawaye Ngor US Ouakam derby lébu yi nga xam ne amaloon tamit ko tamit ci week-end bi 2 buts partout euh, classement bi nii la tëddee Casa Sport moo jiitu am 30 points Diambar topp ci am 29 points Linguère topp ci am 29 points ñi nekk ci ndàdd bi di Olympique de Ngor ak Mbour Petite Côte. Guédiawaye moom moo daan AS Douane <laughs> waaw Guédiawaye mi nga xamante ni moo daan AS Douane moom tamit am taxawaay bu am solo ci classement bi daal daan ñii di AS Douane nga xamante moo nekkoon amoon na taxawaay bu am solo eh, ci bopp classement bi ñoom tamit seen liggéey bi dafa am fu mu fu mu fu mu mm-hmm. bi Ligue 1 bi club bi nga xamante ni kii di Jamil Faye moo ko dirigé ñoom dañu dañuy innové bokk ci nga xamante ni club yi gën a xarañ lañu léegi surtout ci côté organisation administration ah moo taxoon ma dem fa def fa benn subu am solo laaj leen li tax li waral seen euh, taxawaay bi lii ñi nga xamante ne changé nañ ko ci équipe bi surtout Pape Cheikh bu Guédiawaye di football équipe bi dañuy def ay live comme tubaab bi la ñuy def ah. ay live tweet maanaam dañuy nekk ci Facebook bi di. Euh, retransmis match bi en direct. di réagir en même de euh. voilà ci en en direct ñu seetlu ko am na club yu bëri yu koy amal ah. mhm. mais ni ko waa Guédiawaye defee dafa ànd ak organisation organisation bu am bu am solo. moo taxoon ma dem ñi gis ñi di chargé de communi communication bi mu expliqué ñu lan moo waral loolu ñu déglu ko tey. L'idée est venue du président bon, lors de son accession euh, à la tête du club en 2011. Bon, ils avaient vu cette époque, Bon, il y beaucoup de fans qui, sont, qui étaient à l'extérieur et qui n'avaient pas euh, l'habitude d'avoir euh, en temps réel euh, les informations du club. C'est la raison pour laquelle bon, il a initié la page Facebook de Guédiawaye FC, non seulement pour communiquer à distance avec les fans qui sont à l'extérieur, en dehors du Sénégal, mais aussi ceux d'ici. Donc sur ce, il a abordé aussi une autre initiative qui est la Facebook Direct C'est-à-dire, bon, les matchs sont commentés via la Facebook, la page de Guédiois FC. Donc chaque match est fait euh, de façon religieuse, commenté de façon religieuse par moi-même, mais c'est-à-dire aussi de donner toutes les informations qui se passent au cours de ce match. Bon, en fait, c'est une sorte de commentaire, de reportage de match, mais de façon écrite, mais pas à, à, à l'image, quoi. Euh, voilà, donc euh, c'est le chargé de, de communication qui a dit tout de suite que c'est tellement important. organisation xam ah nga dañoo foog dañoo foog ñu lépp de forêt informel. alors que dañu nekk ci monde boo xamante ni euh, c'est-à-dire euh, foo sax dafa war a am organisation. et ça on l'a remarqué ci Guédiawaye FC. résultat mais résultat yu baax yi moom moom noo koy waral et club bi non seulement dañu amoon euh, projet ñoom dañu nekk ci projet mm-hmm. bi ñu xam ne projet club bu tegee projet danaan fii ak 5 ans comme ay Paris Saint-Germain mi ngay gis ay France fii ak 5 bëgg nañu am yegg ci fii mais ci yoon boobu la ñu nekk nii moo tax affaire yi du fenn mm-hmm. résultat surtout ci côté football sport résultat boo tegee yenn organisation une bonne organisation à chaque fois résultat bi ñoom dañoo am ba am seen kiné bu jógee ba Espagne. Eh ñu recruter ba Espagne. mu ñëw xam nga ñu club yëpp tey war nañ ko bu fekkee moyen yi daj na. wala bu mel nii war nañ ko mën a roy. Mm. mais tout le temps en général dañ koy seetlu ci centre de formation yi comme ay jàmbaar ay mm. génération foot ñooy am yooyu nga xam ne mais mais fii club bu nekk nii euh, au niveau de la banlieue am mm. organisation bu mel nii vraiment c'est à saluer. moo tax ñuy recruter benn euh, kinésithérapeute bu jógee ba Espagne mu moom lañ demoon rencontrer ñu déglu ko tëjee. Bonjour, euh, je suis Maria Bouchadet, la kiné décédée d'Hawaï. Euh, ça fait mm, deux semaines que j'ai commencé ici à travailler. c'est un... bon travail. Et euh, <clears throat> c'est un Sénégal, c'est un lieu que ça fait beaucoup de temps que je connais. J'aime beaucoup. depuis la première fois que je suis venue, J'ai ai bien aimé, et depuis ça, c'est un lieu que j'ai dit que je vais venir ici travailler. Ici, mon travail, <clears throat> maintenant, ça marche tout très bien. J'ai eu beaucoup de collaborations de tous les Gediaoui ah Football Club, de tous les staffs, de tous les staffs médicaux, médical, staff technique, tout le monde, tous les joueurs, ils m'ont beaucoup à couiller. <laughs> pour moi, ça c'est être une femme comme un kinésie. Pour moi, c'est pas ça, ça a été jamais un problème, ça a été jamais un, une chose que ça fait une différence, non Je pense ça c'est une chose peut-être euh, quand tu travailles à niveau professionnel dans la santé, c'est pas un problème être une femme. Ou, ou une... Maria la tudd moom mooy euh, kiné bu euh, Guédiawaye FC. Mhm. voilà euh, c'est c'est c'est toujours bien. bien organisé très bien pour am résultat et puis bu weesoo football dañuy waxtaanee pétanque. waaw pétanque xam nga ni xam nga mën nga pétanque Pape Cheikh. ana ana ana bul yi fii. mën naa la woon rek ak bu butéel. <coughs> pétanque rek laa mën a joué. si taxaw dafa am dafa am solo. position bi. waaw ah, bu la neexee sax boo ci bëggee fii voilà. je te jure ah. buy taxaw boo ngéwelee ba ngéwelee nga def natt. après nga natt ko boo ngéwelee ba ngéwelee da ngay natt. <laughs> saa yeeg dañuy. am sigil rek yow it. boo buggee ngéwele gën a xool ba jonkoon ne nii. waaw sigil rek bala tubay ji am na lu muy demee sax nga yëngatu tuuti ne nii. <laughs> voilà ñu natt ko boo ko nattee après nga jóg. Oh. je te jure je jouais de la pétanque. moi ah oui mais eh ah je te jure ah je jouais de la pétanque moi. mais doomu caserne la. ah yow doomu caserne. c'est normal ñu joué yëpp la ñuy joué ah. natt ko nii. waaw nga mel ni luy dugal ak luy génne technique la. ok d'accord <laughs> li yëpp bokk ci Pape Cheikh li yëpp yaa am ci boole. li yëpp bokk ci moom. Eh, pétanque bi man man de ba léegi ñaagu ma man ah, ah, ah, lii moom yàq ci boole bokk ci yow yii daf ci bokk xale yi moom yàq ci boole dafa ànd ak ngéwél man lu amul ngéwél bugguma eh pétanque pétanque en plus eh même boo ci nekkul champion le fait que tu te retrouves avec des potes mhm. surtout que c'est un sport qui est souvent joué par par de grandes personnes le fait que dimanche jot nga àndandoo ak paa yi mhm. ça va pas ba mu tóoj ba def blouson bi ba heure minute c'est comme ça sakkal nga sa papa de yow. <laughs> bu la neexee sax nga xaw a raam tuuti. Ah, ah. saa yi nga ne <laughs> non boobu da ngay génn zone bi. eh mais après c'est très simple ah tu fais juste comme ça tu fais juste comme ça. kenn du ko sànnee nii nag ah. <laughs> ah regardez kenn du sànnee nii je te jure kenn du sànnee nii. oui oui c'est vrai tu fais comme ça. da nga gëj a joué wala. da nga gëj a gañ na joué. Pape gëj nga joué nag. ah gëj nga joué. et je gagne. et je gagne et je gagne. on teste on teste. gis nga jonkat bi intéressé wu laay pire ba ma jonkoon sax jël jël ndam di de avant may sànni dañuy yóoxu dama jonkoon rek nii xaw ko naat dugal génne def nii defaat nii defaat nii defaat nii daal di sànni maa mën a jouer pétanque nag alors démb boo nekkoon treizième édition tournoi pétanque euh, euh, du club de Soumbédioune pétanque club waaw ñu ngi doon defee fële ci jëppal Pape Cheikh demoon nañ fa xam na rek sport bi dañ ciy boole parfois pétanque ñu nekk ay tournois yi nga xamante ni comme ni ko ay dimanche dañuy dajaloo ñoo xamante ne ay champion di am ay champion ci pétanque en Pape Cheikh mais nag ñii di waa Ross Béthio dañoo ñëwoon ci tournoi bi assisté fekkee eh, si tournoi bi regardez xoolal dama dama dama sànni rek télé bi fay attaquaat na merci beaucoup merci beaucoup allez voilà le technicien là. <laughs> léegi bi ñu bi ñu bi ñu fa ñëwee waa Ross Béthio ñoom nee nañ euh, vraiment région yëpp dañu am espace boo nga xamante ni ci jouer benn terrain boo xam ne ñu mën a participer di def ay seen i pétanque mais ñoom waa Ross Béthio amuñu ko seen euh, cri de cœur la ñu lancé looloo tax ñu demoon fa euh, jëloon cri de cœur boobu juste ñu am espace boo xam ne dañ ko fële fële ci Ross Béthio. fu ñu ko doon jouer ñi ko doon defee fii ci Jëppal. ah Ross Béthio bi lu ci ah. ñoom dañoo ñëwoon bëgg di demander lancer seen maire. d'accord ñu am terrain bu ñu pétanqué. dëkk bi Ross la tudd maa ngi représenté fii Ross bien que yëguñu ma sax mais maa ko def à mon propre nom parce dama bëgg bul alors tournoi tournoi bi bu mag a mag la mooy Soumoudioune euh, Pétanque Club euh, boo xam ni def nañu record am nañu plus de cent soixante dix neuf jours qui est record. alors man euh, appel bi may lancé maa ngi koy lancé sama maire Bekay Diop di sama xarit di sama rak pour mu wutul ñu terrain à Ross Béthio parce que am nañ fa potentiel bi am nañu également le site li ma mënul comprendre moo di par exemple dëkk yu ndaw di tourne di euh, di organiser ay tournois alors ñun à Ross mënuñu ko def uniquement parce que amuñu terrain alors que ñëpp ñu ngi wutal seen dëkk euh, terrain de pétanque donc maa ngi lancé un appel ah monsieur le maire Bekay Diop bu nekk sama xarit sama rak ak autorité yi nekk fi yëpp ñu wutal ñu terrain de boule à pétanque voilà vous avez gis ngeen technique jonkan bi. Euh, donc j'ai raison peut-être mm-hmm. man maa ci yokk tuuti rek. mais bu la neexee tu peux tu nga mel ni kuy toog. après nga jóg sànni ko c'est des techniques yoo xamante ni il faut maîtriser. Ah et puis c'est un sport qui est trop passionnant mm-hmm. regardez. <laughs> Euh, comment comment le yi joue. donc ñoom ñu ngi jógee Ross Béthio. c'est ça waaw Ross Béthio la ñu du woon Ross Béthio rek en ah, région yëpp ñëwoon nañu fekk si treizième édition tournoi bi. Mm-hmm. comme ni ñu koy sport dimanche le quoi. Comme disait un pote Richard les millionnaires du dimanche. ils mettent leur argent sur la planche. <laughs> avec une chemise blanche. qui leur va beaucoup mieux. Euh, comme nous milliardaires. ma chemise blanche du lundi matin. Mhm. parce que je suis millionnaire du dimanche. les millionnaires du dimanche. Ah qui ne se salissent pas. ne regardez pas. <laughs> déjà sali, ouais. déjà sali. Ouais, déjà. Donc, je le pauvre du lundi. <laughs> mais li ma li may énervé kóolu simis yi du muy tilibee. <laughs> je te jure man de saa yu bokk soleil bu ñuul ku tilib. non je pense que kii bi la li ñuy def. yaa ay ñaari fan ñàkk a <laughs> voilà donc on parlait de ça euh, et c'est très intéressant comme quoi nous nous parlons de tous les sports alors tey euh, pare wuñ ci puisque ce soir on vous donne rendez-vous ci sport à la une. sport à la une ngoon dinañ ci ñëw yaatal ko bu baax surtout pétanque bi nañ ci def benn reportage bu yaatu waxaale aussi ci coupe euh, foot féminin bi ak surtout championnat championnat national Ligue 1 bi 20 journée bi ak Mame Fatou Ndoye Nko. voilà merci.